413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor a tax. rafetlu suñu bànd ak ci suñu gaal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen a jàmm ci xibaaru ngoon gi ñu ànd ak yéen jukkil leen xibaar yi fi jot a dañu koy dooreek na ak tiis wi nga xam ne moo dal waa Touba Mbacké ginnaaw bu ñu ñàkkee nit boo xam ne ku ñu ràññee woon la ci yoonu murit rawatina doon fësal liggéey bi nga xam ne moom la fi maamam bàyyi woon di Serigne Abdou Marème Mbacké doon doom ci ki nga xam ne moo di Gaynde Fatma fësal nañu génn àddunaam tey ginnaaw bu mu ñàkkee bakkanam ci guddi samedi jàpp nga xam ne moom moo di dimanche denc nañu ko démb ci dimanche ji fa nga xam ne moom moo di ca Touba ca ya ñu koy jàll képp ko xam ne yaa ngi ci communauté Mouride rawatina ña nekkee ca Touba ak ay mbokkam ñu wax ci mbiru Ndeye Fatou Ndiaye di journaliste ba nekkoon ca Walfadjri ginnaaw bu ñu gisee ni dafa daal di jóge ca Walfadjri ay fan ci ginnaaw la ñu defoon nag boobule publication ne daal dina ndax dafa dal di jote ak ki nga xam ne moom moo di PDG bi doon doom ci Sidi Lamine Niass gisaat nañu leneen lu yees lu bokk ci mbiru Ndeye Fatou moom moo ndax doon nañu moom moo nekk jamono ji directrice ak itam rédactrice en chef bu FM FM ñu àddu wax ci leneen tolluwaayu mbas mi ci biir réew mi waral lu ci bari loo xam ne waajaloon nañ ko ci janvier bi dañu koy dakkal bokk na ci audience solennelle bu rentrée des cours ak bu tribunaux yi ñu fas yéene xam ne ci la ñu nekk dañu koy dal dina karandal ba jëmi jamono bokk na ci thème ba ñu waroon waxtaanee mu di justice ak conflit foncier wàllum coowal suuf ak li nga xam ne moo di wàllum yoon ka waroon def boobu boobule discours di madame Elisabeth Ndaw Diouf moo waroon amal boobu boobule waxtaan bu ñu sukkandikoo ci loolu nga xam ne nag jot nañu ko fësal moom madame Elisabeth Ndaw Diouf moom moo nekk juge bu tribunal bu travail hors classe bu Ndakaaru diggante Youssou di Thione Seck daal dinañu koy euh, def li nga xam ne moom moo di coowal xale ndaxte sànnante track li nekk ci seen biir te ñu jàpp ne ke euh, guerre euh, froide la ñuy def kenn ku ci nekk yaa ngi jéem yootu sa morom di ko sànni ay track ci réseaux sociaux yi te itam daal dinañuy gis ci jouru 31 décembre ki nga xam ne moom moo di Birane Ndour ak waaye juróom wu góor woowu di bu Youssou Ndour daal di génn tontu ki nga xam ne moo di Thione Seck ginnaaw bu ñu jàppee wax ak ñoom wax joo xam ne naam tuddul seen tur waaye wax ja ñoo ko moom daal dinañu gis nag Birane Ndour mu wax ci ton boo xam ne kenn mësu ko ci xam tontu ne way juróom wu góor ku ko yàpp danga nga ko fekk muy nelaw waaye ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy suivre ñaari kan yooyu dañoo jàpp ne kenn ku ci nekk wax ja nga yëg ci di ko wax sa moroom nga ko wax. ba tey ñu des ci mbiru Thione Seck ak Youssou Ndour tey daal dinañuy fësalaat beneen euh, article boo xam ne dañuy wane ne Thione Seck ñëwaat na moom itam di ki nga xam euh, waaye bi tontu xaw naa am différence ak tontu yu njëkk ya ndaxte kii di Thione Seck dal dinay àddu jëmale ci lu ni mel nee na nee na nit ñi ñooy wax ne yu Ndour ak doom ja Thione Seck la ñuy tontu waaye gisul benn yoon ci seen i wax ndax wax nañ ba jeexal te amul fenn foo xam ne tudd nañ fa ki nga xam ne moom moo di Thione Seck ñu àddu wax ci wàllum njàngale meek njàng mi eh, ci directeur général du centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru eh, di eh, ki nga xam ne moom moo di Maguette Sène daal dinay dëggal décision ba nga xam ne moom moom la jëloon ci le 31 décembre bi nga xam ne ci la ñu waroon dakkal lépp loo xam ne ay contrat euh, CDI la maanaam contrat durée indéterminée yi nga xam ne amoon na ca fa nga xam ne moom moo di centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru ba tamit daal di jotoon xamal ñi nga xam ne ñoo di concerné yi ne lépp loo xam ne ay contrat contrat la dina ko dakkal daal dinay dellu siwaat ca boobu la décision euh, ni amul lenn loo xam ne war naa mën a tax mu changer boobu la décision coowal troisième mandat ak li nga xam ne moom la maître El Hadj Diouf xamle ci lu ñeel wàllum élection locale ak député yi ne njiitum réew mi moo leen ko wax fa nga xam ne moom moo di ndajeem APR mi ne fas yéenewul organiser leen loo xam ne ay élection la fi lekk 2024 tax askan wi jàpp ne njiitum réewum Sénégal dafa bëgg a def li nga xam ne moom moo di ndëgg sërëx ci askan wi ndaxte ba tey yàbbi ci lu ñeel wàllum troisième mandat waaye mouvement M24 dal dinañu koy nag juddul ginnaaw bu bu ñu jàppee woon ne mouvement m la nga xam ne moom moo doonoon euh, li ko taxoon jóg da ca daal di échec mu di njiitum réewum Sénégal ma woon di maître Abdoulaye wadd ak troisième mandaam gi fi bëggoon amal ba waraloon ñu juddul M23 da ca mujjee échec waaye ñi nga xam ne ñoo ko ngankoon m ñoo ñëwaat ngank li nga xam ne moo di M24 décision ba ñu jël wala li waral ñu daal di juddul M24 boobu bokk na ci daldi di nag artu li nga xam ne moom moo di candidature Macky Sall ci élection 2024 ginnaaw lakk gu métti yi nga xam ne moo amoon ca Koungheul fa nga xam ne moom moo di gént pàate fukki kër ak juróom yoo xam ne dañu fa tàkk ba jeex matériel bu yàqu loolu nag mi ngi amoon ci week bi nga xam ne moom la ñu génn tax na le ministre du développement communautaire euh, de l'équité sociale et territoriale di Samba Diembène Samba Diobène ka di dinay dem nag ci gént pàate ngir nag ne meeku ji askan wa nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci jafe-jafe ak ak seen euh, waay yooyu nga xam ne dafa tàkk ba jeex ngir la ndaka la leen mën a jàppale ngir nag ñu dellu siwaat ci situation ba ñu nekkoon ñu àddu wax ci leneen dem ca Touba Darou Mousti xale bu jigéen bi nga xam ne moo nekkoon diggante Louga ak Diourbel di arnaqué nit ñi ci li nga xam ne moom moo di Orange Money mujjee nañu ko teg loxo mi ngi wuyoo ci turu MF ña ngi ko jàppee fa nga xam ne moom moo di Touba Darou Mousti ngir naw bu ñu déposé woon yu ak arnaque yi nga xam ne mu ngi ko doon arnaque ci euh, orange money yi jamono ji moom MF moomu mi ngi ci loxoy euh, takk der yi coowal Babs jaspora ak Moget ginnaaw bu ñu ko fësalee ci réseaux sociaux yi le 22 décembre bi nga xam ne moom la ñu weesu ne kii nga xam ne moo di Babs Diaspora ak Moget seen diggante neexatul andi na ci ay leeral moom Babs Babs Diaspora daal ne site yi nga xam ne ñoom ñooy bind yooyu les informations euh, doonu lu wér te itam Sénégal dañoo tàmm di joxe ay information yoo xam ne dara amu ci digganteem ak moget jàmm ci am te jàmm moo ci mës am ñu àddu ci leneen soxnaas Abdoulaye Diop Xaas di sumbulu bàcc li moom la xaritam bii di ñamaxiit dal di yóbbul benn cadeau boo xam ne tax na rongoñam dal dënnam di ab photo boo xam ne photo yaay sumbulu lañu ca def mu mel ni sumbulu dal fësalaat dëggal cofeel gi nga xam ne am na ko jëmale ko ci yaayam ndax xaritam bii di ñamaxit cadeau bi nga xam ne moom la ko àndil doon na loo xam ne dootu ko fàtte ba abadan ñu wax ci mariage basketteuse bi nga xam ne moom moo di Astou Ndour ci week-end bi ñu génn la dal di def li nga xam ne moom moo di mariage am ñu dal di gis ca boobu boobule mariage nag ne respecté wu ñu li nga xam ne moom moo di mesure barrières yi ak tere gi nga xam ne ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome tere woon na ko lépp loo xam ne ay dajaloo la ndax dal nañ gis ca mariage astu Astou Ndour boobu ab orchestre boo xam ne kii nga xam ne moom moo di way waykat bu Médina bi di El